asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu aduna nder ke mboolem koo xam ngi setan Sahel Network Entertainment man la sen harit Abdoulaye fi ci a waxtani mbeda bi ñu street talk te ma ngi ni fi andak a ah, kansolo di Pa babu Cham nga xamne mo nek jollof Jolof Town Ward sen kansolo bi Pa babu di leen Abdoulaye dalal ak jama ñu nga si ward bu gina ne ci si wooti Banjul ñu Jolof Town Ward eh, di content eh, content trop sa teewaay tey ah, asalaamaaleykum eh, mbooloo bi maa ngi ni di nuyu di nuyu Sahel bu baax si opportunité bu ngay joxat fi suma kër la dal euh gëna wu ma sante suñu borom di nuyu sànq bu sell bi ci suñu yaakaari ëllëg di sant suma ñaari wajur suma sëriñ Mawlana Sey ness euh di leen ablay dalal na la fi ci jollof Town Ward euh, nek ci Banjul South di leen dalal ak jàmm. jërëjëf jërëjëf Pa Babou ñu am contenté trop ñu pu pour waxtaan ak yow suñu waxtaan bi moy lan du ñaka tamit dégg nga ko mu mun naa ne mooy bi. muy affaire yi food package bi nga xam mo nekk mun naa ne moo nekk waxtani Banjul dal tay tey Pabaabu ñu gis na ne yow yang ci si council bi understand so ñu gis ne yow council bi amna lo loo government joxon nañ ko council pour ñu sédalé ko wa Banjul yow ñu gis ne Pabaabu yeen councilor yi jëlu leen si boole boole maanaam daal bokku leen si lu waral loolu Lalu la bu ma si waxee dinaa si sawar a tontu trop. nit gis naa ñu bëree ngeen coow Banjul. waaye dama believe ne jarul coow parce que nit boo laajtee rek doo réer su dee am nga dégg dégg bu baax parce que kansul si boppam bul di taxawee di pandémique bi Covid 19 bi den formoon team bu ñu ooyee comme seen yi mooy si si solution boobu gars yi pour def sauver waaye on date bi bu gaa doon form that loolu uh, eh, council man ma fekkoon nag maa ngi feebaroon so waaye après gaa yi form ko uh, gaa yi di ko door bu def sauvé bi so bu gaa doon door benn time uh, once depuis demi moo ma call mu ne ma gaa yi woo def bu def sauvé bu ñëw sa area so dañ bëgg nga jàppale ma ne ko ah anyway man daal fekkee mool comité bi ngeen ko taxawal man daal du ma bokk si si affaire yi parce que man maa ngi turoon feebar te kenn waxut man after ne foog ne lu mel nii so du ma dugg si loo xam ne yëguma si dara soo te su bi bëggee war a def nii pour xam ñaata house house ñoo nekk suñu area ak ñaata compense ñoo nekk area man sama ko laajee man ay ka ward council la man xam naa loolu si already def naa suma homework bu yàgg xam ko anyway man daal ma ne ko xam xamal lii pour lu si mën a nekk nga xam ne man waxoon naa la mm-hmm. day after uh, PRO call ma wax ma lu mel ma expliqué ko deuxième tamit mu ne ok naa jox gars yi seen namba gars yi neen la call so bu gaa ñëwee suma area uh, gars yi call moom fa dal di ñu am dëj uh, mm-hmm. suma benn yaay fii Mama Jaay te day jaay cake weekend yal mhm. na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana suuf si rasi ko am te di gaam dëj afta ma gis gars yi afta dëj ma dugg si benn kër toog sama benn koto naa ataya am jigéen bu fa dugg si ñu ñëw di laaj kooku comme seen kër ñaata ko ko dem euh, suma jabari bu rota kool ma di ma ne yi ñëw sa boor pour def sauvé bi xanaa gars yi kool la mais ko anyway gars yi kool ñu waaye man maa si maa bi daal anyway so afta nu laa si lifi ba benn temps ñu dem council euh, am fa jom ci tante meores far far avenue sen bu fa afrika ñew fa moy fana moy de bu gaay way ne men ne wala jo gaay this food items ci bopam ma la jafa gaay ñu tok gaay doon wax biri affaire naka taxawé ene ma won gaay ne la man dal da de bu ñoo fam lolu man fek mo fi won mais dos ne ma ayu so me ne ko gaay ngi laaj man mo ka ma ngi febar mu ne ma ok ko ñu yo ko won mu ne ko plus aw mo won ben call amul ku ñëw amadou diallo mu ngi ci gaay seen biir amadou ci wa mo ne amadou wuri amadou wuri ci wa mo ne man call na la waaye sa fu mu receive ne ko ma ne ko anyway kon xam naa rek ma call fekk maa ngi doon wax mu busy mu force sama boy bi Mia xam naa Mia mu receive call yi moo tax mënuñoo dégg waaye anyway daal loolu du problème so things nii la fa demee woon ba bii bu government doon joxe fanaa government laajte laajte eh, data bi so ñoom ñu ne Banjul households in Banjul fanaa gars yi nga recommend fanaa I think is five thousand seven hundred something like that seven hundred and fanaa I think three so government dinañ jox Banjul sixty percent of Banjulians why uh, eh, the problem is uh, government sen bopa mun len joxe data bi ñom ñoo tan 60% bo ñoo select 60% print coupon si jël coupon si hand over ko BCC c'est à dire bala gari ko don joxe député mion si won ma call ma ñew ñu met sama bundi kër mu ne ma gaay ñu mëna waxa man mais man la ibal ma dem so legi euh dem bu ko identify venue bi fan wala ñew pour def distribution bi so DMC wax mané ko ñun anyway nañ jël use euh, KG5 moo ñëw Favour waaye naa si wax a boss ak euh, ak Modou Ba ñu seet fan la ñu d' accord so after mu ne ko daal dinañ tamit Pa Diouf tamit ñu seet mu ne ma bu baax ñu wax ak bu kan seen dara bàyyi ko kii na not tamit su ma boss nekk seen dara ma ne ko ah, anyway after ma call Modou Ba expliqué ko bu dama callal boss ma call boss after ma am ko ma wax gars yi ne anyway daal dinañ seet Pa Diouf su ta am Pa Diouf ñu seet naka la so sila ko suggestal Pa Diouf waaye at the end after affaire si gars mujjee koo yóbbu euh, gars yi mujjee koo yóbbu fële euh, KG5 so after gars send a message send ko si suñ page bi ñu ngi am page council chambers so bu gars foofu yëpp mu ngi fa ñu wane ne council si bi eh, government si waan joxee ne coupon si percent of Banjulians la la la mun a help si so si boo fa ñoom ñoo jël eh, coupon ñoom ñoo ko tasaare ma ñëw suma word ay ward suma ward development community ñu ngi am ay page ma des fa isi won gars ne ñu mel nii mu ngi xam te ko balaa loolu sax musoon naa won gars ne ne gars yi dégg ne ñu nekk dañoo pour gars yi uy si paak bi mais leen man bokkuma mënumaa dem mënu ñoo ya bypass mais yow ñu mu oo ma man kan ma ne uy ci loolu du ko def so jotoon naa si after ma dem eh, am benn kis balaa ma rek si police ñu ma si si paak yi ma dem fa dam top fekka fa Tunko ak muduba Ba ñu taxawoon may wax ak ñu anyway man da after dinaa wax ak ma wax iso bi mu koor ma ne rek la kiis kiis boobu ma yóbboon si paak bi after ma ñibbi so after that day bu gars yi génnee eh, ma romba fii suma area fii ma fekk ambre bu rek mu ngi toog si benn bitik bu gars yi tasaare eh, coupon am ñu ma ko di ma laaj mbiri coupon ma ah, daal gars yi si yéesu si boobaa ñun ñoo ko distribué ku gars yi call nga xam ne si ku gars yi call xam ne yow yaa ngi si 40 percent bi nga xaar ba bu bisi si bi jot noonu laa ñëwee ambre bu dama booy kaay jàppale ma noonu laa ñëwee di ko callal ay names di ma jënd crédit waat di ko jàppale ma ne ko xam nga ne yaa ma def joxoo liggéey boo xam ne lii sa liggéey koy def ne ma su ma nga jàppale ma rek loolu laa ñu afta ma ne ko léegi leneen lu ma la gën a mën a jàppale xarama see ñan laa ma cek ñan laa xam yëpp ñëw jox si mais leen ko bind si coupon si yëpp ku wala ah, am li kon kontaan kontaan si gaay ku am li nga merel gaay ñoom lii bu saa government la jigee noonu leen dooree afta ma joma coupon si eleksi la kay doron distribution bi bu kay doron distribution bi ma tidam le man duma ne si pack bi man dama tok suma suma suma kër gay call ma suba si ay bori 8 clock ma receive call call call call call call call call call call call ku neka mu ma sun area fi dañ ne fu neka dañ si pack gi ne yow yow ya ñu mëna garantie garanti agence bi yaa ko mëna a sign fu neka pour ñu mëna am lifin bi Eh, suñ foot ay ñu mun ko receive ma ne anyway man daal lii xam nga ñëw yëguñ si woon dara gars yi ne ma yow lii fu nekk right now dañu war a ñëw jàppale parce que ñu ne suñu yow soo ñëw duñ ko mën a receive ma gëm ne man as a wattansu la I think suma problème yi gox si gars yi am problème dama war a involve sama bopp ii dañuy yëgalu ñu yëgalu ñu woo da nga war a involve sa bopp nga jàppale sa gars yi parce que si li nga bokka walu la xaar si ñu la see o ma daala ma dem si paaj bi fekk sama ay kilifa ma ñoom ñëpp jóg ñoom ne ma yor nañ doon xaar ne leen leen ma dugg si ma laajte lan la war dañu ne da ngaa teg note nga bi na nga woon gars yi yow yaa garanti gars yi pour gars yi mën a receive seen lii parce que ñi ñu bëri amul photos card amul ID card ñi seen tur yi soo fu nekk yow yaa mën a garanti gars yi parce nga sign ba pare nga bind sa sa téléphone number ma ok du problème ni laa demee ma génne kiiti tabax ma bul dem xaaral tabax bi bindal lu bëri ma ñëw toog ku nekk ma jël sa coupon seet ban tur moo nekk si si coupon bi parce que moo nekk si data bi ma jël loolu man ma jël tur boobu ma bind ko ba pare ma signal ma garanti ne ma maa la garanti pour nga receive noonu laa ko nekkoon di ko def di ko def di ko def am na carte yu bëri coupon si ma gis ñi ay xe ñi ay xeegaan la ngay jigéen ñi ay yeneen area si Afdaay ak Portugistan waaye seetu ma ne fii suma woor la seetu ma kii woote kii la dama seet ne Banjul South la te ñaari kanso si nekk si beneen Ba man seen rakala lo xamne dafa waya ha seen der man nek fa dama ko taxama setal seen der li nga xamne ne na ne man mënu ma koo tontu ñom seen bopp afisi si gaay pare gaay tontu ma xam ne boobu su ma sañalee suma boppa ni la suma la mu ko gaay stade ana kansula la si ñoom mur ba ñom bo mais as faras mang ngi fi maa répété ñaan ñooñu ñep so du problème ici len ma sañalee yeen ñep mané len yeen yeenama fi ici pour ma sañal ngeen mëna jot li waaye bii ñun boolewuñu si moo tax coupon la gars yi o oo ak according to NIMS loolu am nañu ko contrôle mooy gars yi si seen bopp ñoom ñoo ne koy distribute coupons waaye am na some coupons yoo xam ne jëndee ma ko xam nañ laa xam maa ngi yóbbu ñooñu peut être espionnel gars yi ne leen bii bu government la government moo joxe coupons yi ñun 60 pour cent of Banjul Lands ñooy bénéfice si lii man li ma mun pour garanti leen soo ñëw leen ma garanti leen. sunoo la ting sanami fos debi mang fa eh, ba dal di luma dal lo xamne ay atti at daluma daf ma dal di ma tok full day lay juliwum full day ni ma noppale ko dama binda binda binda ba buga de ba 6 o'clock buga lé fi ma yot nang nank ma nga ñibi dama ñëpp dok ko tam buru sa mënuma ko jéxal ci élection ci sem ma dem jappalé wat gay wat nekkat fa wat di assistance gay di len sénal things demel non euh after ci goudi ci am ko mané sen groupe bi bañu saat am na lu fas dafa gaay seen déglu ma ñëw déglu benn vidéo ma gis vidéo bi suma kookan su la Modou Ba bi nga sama mag la mu ngi wax ne euh, lii yëgaluñu si ñun bokkuñ si su ma wax loolu sax foofu find ay agré waaye fu mujjee temps after second vidéo mu ne kan su la bu fa dem tamit yaa nekk sa naa feexa nga dem fa waaye anyway jàppee wu ma ko quoi nekk euh, suma mag sonte def ma saaga sax mun naa moom suñu lifine yéen ñoo caaxaan ma xam ne jàppee wu ma ko man du ma dee jël dara jàppee ko enu ma àdduna bi daal dama yombal suma ay mbir daal ma kool ko si guddi ne ko dégg naa li nga wax si groupe lan moo tax nga wax lu mel noonu mu ne ma xanaa yaa ngi fa mais ko maa ngi fa ma ah, anyway man lii laa ma ne ko lii mënu eh, eh, tax nga clear soo bëggee clear seetal sa bopp si nit ñi damal KG5 nga toog sa gars yi ku ñëw nga sanal ko ñeneen ñu ñëw nga ne leen ñun si lii CSO yi seen bopp ñoo nekk di tasaare lii te ñoom seen bopp sax bu leen ñoom ko na print jox leen ñoom tasaare la gars di am so lima la bëgg wax lu la advice assez broda dama ci park bi nga tok ku ñow nga sen ko pare nga won sa nit ñi ñi xam man de lu lay def suma ma woot ma ñor mo jige ci moma kol ma ma sen mu ngi na audio audio mamou Touré kan su la Mamadou Touré mo tax sama broda sama real way la leen di uba waxtan mamou ma diglu waxi mamou Touré ma kol ne ko anyway yow daal su léegi deful leen ko man dina ko defal suma ay suma woot ni man suma ay kilifa de mu ñoma ñoma tek advice defal li li sa liggéey da nga def parce que sa waa waa sa waa woon fu nekk right now dañ la soxla so assistal gars yi nga jàppale gars yi gars yi mun koo am bul seet dara dafal ni gars yi li yow lii pour ëllëg dafa lay jàppale su yeneen di bëri su ñu fi politique sax dafa laa jàppale ko énii man defuma dara ni politique parce que man dama gëm ne politique jeex na bi dee bu ñu ëllëgee liggéey moo ñu war nañ liggéey ba politique jotaat man du ma def dara ni politique du ma jël dund di ko joxe sax te nit sax di ma gis looy def daf ko te yàlla tax nit teg kontaan na nit ñi ma ini? So, so, don't worry, because look sa responsible lah. Yeah. because you owe for the people yeah exactly I understand yeah yeah so uh, uh, papa Babou gis nañu wax nga lu bari I understand lan moo xew Pa lan moo xew si council lan moo si council bi ah, anyway manda daal lagi ma laajee loolu ah, gis naa ah, ñu bëri ne ma ne consulat consulat consulat si ñun su ma war ini problème ma Ini naa gars yi déedéet consulat si ini kenn amul problème ñun ñeneen dañoo daje dañoo so fan la problème wala nek mi bi mun ku am problème da nga am problème euh, nga mun na mi bi nga meilleur I don't know xam nga kansu la bu ak meilleur man lolu mënuma ci dara parce que kansu la nga ma nek la so dañ wala a jotee sa man lolu du man sama problème man parce que dama buri ne euh, moy bouri Banjul so mom mo élève Banjul tay lu fi yahou tay dañu ne kansu la si ak meilleur bi fekka sax fekka sax lu nekkut rôle kansu la bu meilleur parce que par exemple ma jël un exemple da nga tok ci ba si si wéji té ñam problème té ñu xamné si wéji on na nawek la nek wala ñu ñu attaque suñu way man ñi ñew ñu tam ñu wax leen dam leen nawek ngeen jëk complet parce que ngeen fay trou sen bill bi ngeen fay si wéji té da nga fay 75 dollars si gaay ñu sa kër pour ligal la wala fay gaay dara lolu ya xana nga neexal leen bu mbéra bi dañ ko la free mais problème bi lolu la comme yu mel comme nonu on s'en mhm. amna yene yu bari yokas lay waxal gaay fan nga em mhm. ak fo emut pour nit ñi mën a xam parce que tey su ma ñëwee ma liggéeyal sa siwéej mm-hmm. Ablaye ma liggéeyal sa siwéej mm-hmm. ëllëg fu keneen amee siwéej problème mm-hmm. da ne hi man de paaw kan sala paaw moom ma dimbale la woon plein ne la lii suma liggéey mun naa naa yus suma jima ak suma position ma dem pour jàppale la pour nga mën a am loolu waaye su gars yi ne problème am na kan su man anyway man daa gis suma problème boobu gis suma benn problème bi nga xam ne mu ngi kan kan kay suñ suñu ñu ni neen kan ñu kansu la si problème bu nekk mm. suñu biir mm. bu kansu la am ak mais loolu ñoom seen problème la waaw loolu moom dina nekk comme ku kansula boobu ak meew moom problème ah kansula boobu ak meew. Mm. biir problème non. Mm-hmm. problème ni nga wax daal dafa mel ni daal leen kansula problème amul si kansul ba. kansula biir non. amul leen problème ñun suñu biir amul problème. waaye man si man man si man dama ne yéen am ngeen problème. loolu la bañ yëpp wax waaye xam nga euh, du ma téyewoon tey booli soow ma tuba ko lekk ko xam nga lu mu saf man maa ko la mooy yow lan la la soow bi saf. waaw loolu mu laa woon ne ñun suñu biir ñun ñoo dee toog kan su la bu toog si biti génn ne la ñun suñu biir ñu ne am problème man maa ko wax si télé kan su la boobu kon naa fexe la parce que mun loo toog suñu biir ñun. amul problème nga génne ngeen da nga am problème asa bene moromi kansu la ama moom problème kon yow nekkuloo nit ku baax war naa seen nit ñi dëgga man lu may wax sa mbokki kansu la si na gaay wax seen nit ñi digga digga rek la yàlla bugga te dëgga rek mooy mujjee Ablaye dëgga rek la mooy mujjee bu benn kansu la nangoo nekk féeg féeg baaw ci doomi Adama nit waxal li nga mun loo munul bul ko wax nit dafa neex foo romba ëllëg doo siga nga dox fu la neex man de suma temps bëgg naa ko sàmm fu ma dox bu jëlof temps du ma siigal kenn fekk si diga ku ma mun ne nekkul dëgga sa problème la bis bu dee ba xam dëgga bi di nga ñëw parce que diine l'islam si ba mo bëgg diga motax man li ma wax duma ko dee ragal parce que li ma wax dama ko xam li ma xamut duma ma si wax dama si mandu parce que mandu dafa baax nit li waxali la leer li nga xam bi dang ko gisal sa bop di nga ko sa bop mu leer nga wax waye baa ñu fi li ñu sonal xees yi dañu sonal dégg naa fii daf ñu sonal moo yàq Banjul yëpp man dama de wax nit ñi ne yéen a élect bi fii ni ku nekk ku digga Banjul si war nga jege any complain bi nga am bi nga am dama sa kansula su dee comme exemple xam nga voters list bi eh, comme nu gars yi démocratie affaire yi ñu bëri nu gars comme yaa ngi ku digga Jolof Town di sànni Portuguese Town bëri na fi kii digga Jolof Town sànni Afdaay kii digga Jolof Town sànni sànni ba di sànni bëri na waaye li ma waxoon gars ne leen boo dikkee Jolof Town nga sànni not loolu passé na mais bi ya gaa yi sànni woon Bintu Kaba win na amuloo benn affaire ak Bintu Kaba Jolof Tanga dikka paawaawu kon su la paawaawu ca am nga amal affaire nit fan foofu nga dikka yow amuloo affaire ak Bintu Kaba soo ne Bintu Kaba nga sànni carte moom nga sànni carte nit affaire si dafa jaxase woon moo tax Bintu Kaba ñëw wóor ba sa area ñëw Jolof Taan ñëw aussi ñan la carte waaye des élection ku nekk war nga xam ne foo dikka foofu nga la amee carte soo mënu maa understand ne man dama la sànni carte Ablaye mun ka sani ablay karta ablay yow nekkuloo woote Ablaye fu mu nekk ren so yow fi nga nek dama si kansula bu nga ci ko sa complet ka toog mo nek ah mu def ma ñëw ni yaa sun kansula dama am problème a b c d mo mu explain la dama fa ne waxtaan si amee si ñaari nit kon ma yow ñu wartan fa na xulo du am su dee am ngeen dégg ñun ñaar xulo du am mm-hmm. waye fu wartan amul rek mm-hmm. dégg na dégg na mo fa nek so moo tax waa Banjul si loolu ne wala bàyyi sun xel bu baax a baax a problème yu bari fi nga gis yépp dégg na amul kenn kula mo mën ne li daf ma leer nañ su nekkee li nga wax daf la leer ken togal nga wax man na ne man bu ci man kan su la Paa Babou Thiam amul dara li nga xam dama ko ragala wax si lo xam dama ko xam ma gis ko xana kañ yalla mu bëgg sutura. amna yene yeneen yu da nga sutura parce que yàlla soo sutura ni yalla sutura jadi su problème bi li la. wa jere pawa bu gis nañ ne comme like ñu ci si eso yi gis nañ ñu ñom ñu doon ci di collecte nimsi. si. individual names si yow dëgga foo for starting bi you are not involved involved nañ la si am understand so te tamit bo boolewuloo mun naa ne bo boolewuloo si sa boppa woon lu la lu tax nga ne boolewuloo si woon sa boppa lan moo tax loolu bele after all nga ñëw bokka si daal lan moo tax daal lu tax boolewuloo si woon sa boppa xam nga da bu ñoo fom loolu ñu mm-hmm. ko taxalee ba pare aw ma prif ne ma lii ba si élection ba afta bu ngay taxale ba afta bu dooree si élection la ma député mayor call dans two days before la ma député mayor call mu ne ma ñii ñi war ñu sa éri mu ne ko man lu ma yëgu fu taxawee nga ne taxawal nañ ko xam nga loolu ku mun a doon doo ko jël ñu ne taxawal nañ lii te yow nekkuloo fa loolu du ma ko nangu comme maanaam daal sa biir wa dafa mel ni yow ndax kansulo si yëpp involve puñ nen non man rek maa fa ne ko dama feebaroon ok dama fekkoon dama feebar. feebaroon naa ba fa nekk dama uyu ji sax waaye <laughs> alhamdulilah sant yàlla yàlla yi waaw boobu man rek maa fa nekkutoon daddee mhm. parce que daddee a ngi mhm. ma gars yi gane ñoom ñëpp ñu ngi fa woon loolu ma maa fa nekkutoon daddee onas naa nga min lii moo tax si demee fa noonu after bu ne si élection day two days before si la ma di mooy call si élection si la ma elba call si dee su ma jabari broda call ma ma ne ko anyway ñu daanee am dëj so moo tax ma doon leeral leeral fu fi nga xam ne nii mhm. Amadou Wuri ne ma am jàppale ma ma stadi ko jàppale sa gis toog si ay guddi ma gis sumay dem yi gars yi ma digga digga jàmbaar nga coono nga ñu bëri di ma di ma tànk di ma digga digga mhm. ñi nga jàppale yow sa yow xamuloo yow li nga def xamuloo te digga la gars yi wax de li ma def man Sonko sax xamuma ko ñu bëri kontaan si li ma leen dem jàppale leen ñu mun a am seen maalo bi ak sukkur bi ak difin bi diw leen am na benn benn jigéen yi eh, I oh, mu nekk aw xaw ma ko sax nuru ku nekk nekk ko foog ma ne sama iri la nekk dafa dem line ba wala am ñoo ko am foog nga am ku la ku ma garanti ki kii dafa ma ñaan la ñaan la ñaan la ñaan la ñaan ba Ablaye moo génne kii mu ngi ñaan te kooku sax xaw ma ko mu ne man lan laa def sama xaw ma ko onze ans mu jël fu dee jox sama time am onze ans min ma toog si kuréel yi ma ne yaa ma ne xaaral nu laa awee gars yi after euh, euh, Serigne Serigne ak ak Ibrahima suma ay ndóoleen suma sla ogaay mais leen kaay leen after mais leen yéen xam nga li ma ñëw leen suma sop nga ñëw ñu toog ensemble minute ngeen check si seen système bi si boppam ci check ku nekk téléphone na mbaam mu laa téye toog kaat ma téye yéen a coupon si eh, Ibrahima téye yéen a coupon si Serigne moo téye funam bi ñu constat di ko di ko call names muy check number si ensemble minute mu joma coupon si nga xam ne suñu fii la nekk man maa man maa boos nii ibi am na yoo xam Ba soo si la ma gars yi joxe ay ma toog su ma ko waxee néem mu mu ne ma téléphone dama bi kii la ma bind téléphone dama si nga naa ko si nga naa ko bi onze cent mille seede yàlla sax xaaral ma fanaa maa ngi amee coupon si mhm. nga lii coupon si nekk nii da comme nii laa ko def dama pay gars yi seen number si tout bi soo gisee ma def ko fii afam suñ ko ooyee comme nii gis ne ko oo na kii ak kii su ko ooyee comme que yaa ngi Aïssatou Camara Aïssatou Camara su ko ooyee dafa ne Aïssatou Camara seen kër moom ak kii ak kii ak kii ñu am coupon su ma kàcce mu ngi bëri so dama dooree one wan dama bind wan one one one wan ma pare ma xool si ginnaaw gis ne ñii ñoo bokk ak benn kër soo mun naa koo kenn rek su pare ma pas ko coupon si ne ko lii seen waa kër diw sanga diw sanga ñoo ko moom noonu laa dooree ma ñëw tuub noonu laa continué dem tri noonu laa continué dem foo on a sànq son point so comme yu mel soo ñeneen ñi bu ñu la toogee après ma toog c'est-à-dire téyel ko parce que am na ñoo xam ne sax ñëw attaque si ma ne ma man aw ma coupon aw ma coupon ma ne leen fan ngeen ñëw ma seen idée si ma ne xaaral si laa war ñi ne dem leen cancel ngeen seet coupon si nga fi amee nga area bii la ngeen isi ma noppale parce que dama jël cancel daddi am suma ah, eh, allowance ba daa ne moon jëli ma fekk fa eh, gars yi cancel la ngi jaxasoo ma cafa ko mu si bëri te ñii jotagul lii te ñii mm-hmm. bu ko niit mm-hmm. ma ne gars yi pas que ma ne gars yi dama leen nga jël ñu nekk foofu kansul hmm. yi nga xam ne area fii la ma dimbale gars yi parce que ay boori fi jaral ñi seen bopp gars yi gisaguñ dara ko isil ma area boobu yëpp ma ñëw ma jàppal leen barki démba la ma isil bu Ken Street bi démba laa dox démba di dox jox jox Ken Street démba te ñu ngi si lan julli waaye bu ko suma gox moo tax ma wóor dimbale suma waa gox di wax seen kër di leen jox gars yi seen seen coupon si parce que ma foog ne dañ ko war a def parce que gars yi ñu sànni carte ñu toog fi tey boo gisee tey ñu war a toog tey nga war a ba di ma ooyee du man ñoom la xam nga te bu man àggee si parc bi dem am na suma eh, suma benn boy Paul dafa ñëw si garaan bi ñu tax ñu volontaire comme man ñëw jàppale ma nekk fa maa moom after bi nga ma sonné bi nag dama ko jox ji dem mooy ko léegi maa ngi saan yi bala moo jëlee li bi na la mu tax mu jël kii xotti gaaw bi na lu bëri mu isil ma after ma tax ma stade di saan sometimes su ma ne maa ngi dem wala yóbbu ay na coupon si pour yóbbu ko dama dee saan yu bëri joko ko mu supéré dafa enter tour bi rek supéré mu jox ñu garanti la nga dem mo yombal affaire si yëfu parce que dama lay gën dem ñu bëri di ma ko di ma nan kay yu la koy xaar ñu nañu yu ñu nañu yu ñu nañu mhm. ma jël lu bëri sen ko joko ko pour supéré mu ci bon dafa bind gaay seen tour dem mu joko gay so moom mu ngi ñëw foofu suba ba ngon mon tamit di ma jappalé suma boy bi nga xam ne mu ngi tura Paul mo tax nekasi world development committee mo dama ci imba ba imba suma world development committee pour gay nekk pour won nga wa world bi ne len li da nga ñu ñor du yi fi politique politique jeena na depuis dée bi ngeen ñu élec fu nekk liggéey mo ñu war dem wala seet su dee sen rongoñ dafa war dem ba la rot ñun ñu ñoo ñu fomb ko ni la fa hmm. Papa Ba ñu ñu Papa because yow ci sa bir wa nga ne like eh, da nga doon jël di jël ay names di binda fooguloo ne ne yow names yi nga xam yooyu yoy nga doon binda ñi nga xam ne ñu nga doon ñi nekk sa area bi ñu nga jappalé pour ñu mëna am ndax ñooñu seen tur tamit na mu ngi woon si data bi nga xam ne moom la si yeesoo yi collecte. dañuy kon bii mun naa am kon dégloo dégloo sama fi bu baax foofu. ok carte si. Mhm. mu ngi dafa am names. waaw names yooyu laa jël au na ma bii classe pin la yaa ngi tudda euh, Ablaye xam naa ne Ablaye la. carte mhm. yooyu laa doon jël. ok comme gis ne kii koñ bi la dëkk koñ suma area ñi nga xam ne dama xam seen real seen real names yi. Mhm. not nick names te gis naa ne moom fa nekk te koñ bi la nekk carte yooyu dama ko receive ma stade di koola ñuy suma boppa di kolal ñu ñu sama boppa di kolal ñu ñu sama boppa ne leen kaay leen on s' en va kaay leen si ko si koñ bi. Mhm. ma ñëw ma jox leen seen seen seen seen seen mhm. la fa leeral ne. jërëjëf papa leeral boobu am na solo. am nga leeral ko waaw ñu ñëwaat si affaire yi si CSO yi gis nañ ne ñoom dañ leen fomoon boo xam ne dañ leen dañ leen isi BCC yaa ngi understand pour ñu mun a collecte ñu mun a wokk ak BCC. ne bi ñoo form tax force boobu noonu like CSO yi bu ñu leen form da yéen councilors si dégg la yow si sa boppam nga ne aweewu la woon loolu noonu boot sa yeneen councilors si collège si ñoom awea nañ ko léegi maanaam daal naka nga foog ne lan nga foog ne CSO yi ñoom naka lañ lan lañ waroon a def first of all bu ñu leen sélégué ba pare lan nga foog ne ñoom lan lañ war a def lan lañ waroon a def first of all bu ñu leen sélégué parce que dégg naa ne da waxoon ne waxoon nañ kan so si ku nekk mu ànda si si si seen bopp pour seen woot si pour gars yi dimbale gars yi mu easy loolu dégg naa ko ñu wax ma lu mel noonu so xaw ma na area yu na noonu la demee I don't know waaye am na benn jaaxa bu na waxal fan yéen ka si paak moom rek si raay red cross si gars yi si si foofu la nekk so mu si wax ne moom ànd naa boos kan bi kan so boos Pakistan jot naa ànd moom yeneen area sama woon ko loolu jot naa koo dégg waaye man comme waaye yeneen kan si nag xaw ma naka la gars yi euh, demee ak gars yi si soosi seen bopp mhm. waaye Mariama si gémmiñam spécialement boos moom mhm. ànd na moom yéen a place mhm. waaw waaw ah, ñu ñu delluwaat si CSO yi si gaata CSO yi ñi nga xam ne ñu lañ taxoon pour ñu wóor pour dem jël collecte data si ak yooyu noonu dégg nañ ne dañ leen ñoom any outing bu gars yi dem dañ leen a fay tout si council bi ndax awee nga loolu waaw anyway man de loolu laajte naa ko waaye gaay yi nangu ñu ne fayuñ kuy yow Paa Babou yow. waaw laajte naa loolu ñu ne fayuñ leen. fekka dama dégg suma e ko la ñu ko interview tun ko jaame mu ngi wax ne ñu leen dee fay ñuñ so moo tax ma dem laajte loolu alhamdulilah parce que man tamit foog suma dañuy laaj ma parce que dama foog ne boo demee tey ba war a toog di ma di jox eh, kansula bi what allowance so I think eh, wala loo mën a jox keneen tey mu war a ñëw daf liggéey bu mel noonu nga koo fay parce que kansula understand nga mhm. so foog ma ne fay ne la mun naa ta xam nga tamit euh, comme man su ma ñëwoon tey ne la affaire ma lii tey da nga ma ko tey volontaire understand nga su ma paree su ma xool foog ma génnee dara su ma xool damaa kontaan ma écrit dara ma jox la ma may la man ma may la loolu ne la am jëlal man loolu laa leen waay waay waaw yow noonu nga yow noonu nga understand because ñoom ñu ngi wax ne ñoom dañ ko doon def volontaire ah. but outside yi am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne these people ñu ngi leen doon fay outing bu dem is five hundred dalasi man waxuma ko man dama ko dégg te ñi ko wax dafa bari so loolu tax ma mun a am ñëw sañ-sañ bi pour ñëw tooga pour laaj da yow as a councilor da yow awee nga loolu mooy mooy mooy li nga wax rek ñu ne dégg nga waaw ñoom ñu ne dañ doon fay ñii waaye ñoom seen boppa dégg nga ñoom ñu ne volontaire la gaa doon def nga volontaire mu dafa leer mooy koo fayit waaw so xam nga loolu wax bi leer na parce que dama foog ne man su may jël wax moom bi wax ne volontaire la moo def moom laa gën a mën a jàpp waaw dan ki nga ne dafa mu ne dégg na mhm. xam nga problème waxoon na la suma njëkk jël problème bu réer réer réer parce que da nga gis ni te jooj ko waaw waaw loolu loolu moom dëgg la Paabo ISC bi daf ñu sonal loolu moom dëgg bu wér ki nga waaye tamit soo ko xoolee ba seet ISC bi léegi-léegi moo de ñëw tontu lu nekk lu am waaw dëgg am understand because of ñi ñi dañ de wone foog naa ne nii ak nii ak nii la wala lii lii ak lii lii laa digga waaye li nga digga tamit loolu moo dee ñoo nekka digga loolu loolu digga ah, loolu moom daf dee am because soo gisee ñu am sañ bu ñu toog because dañu am sources yi nga xam ne yamono staan ñi nga xam ne ñoo ñëw di wax loolu te yow di ñàkk sa koo kansulo tamit digga nga ko mu ngi wax loolu bi nga déggee loolu yow si sa koo kansulo yow lan mooy sa réaction si loolu bi nga déggee loolu yow en tant que Pa yow dégg mu wax ko loo ma jox sañ sa mi ne xam nga doon laajte lii ma xam si lu leer uh-huh. loolu moo tax mu dem laajte te bi ma dañ ne ñii nekkoon di leen fay dañ ne nekkoon di leen fay ma jeexal si jërëjëf parce que dama gëm ne ëllëg fu ñu taxawee ëllëg di wax lu mel noonu te mu noonu tey ngi te si te laa toog tey nga laaj ma ko mais la man dégg naa si boppam ñu ne lii di leen fay uh-huh. so te ki ma wane déggu nekkoon di leen fay waxam laa gën na mën a téye than eh, anybody else because moom moo fa nekk moom moo fa liggéey so ñoom seen bopp ñoom laa gën a mën a téye seen ñu nekk di leen fay waaw wax léegi koo dafa génn si kansul foofu dem wax loolu ne ñii ñu ngi leen a fay ndax kooku su ñëwee wax la na di nga mu nekk staff mu nekk staff eh, indi kansul la ou staff ne dégg na ñi leen boobu wala ñu seetaat affaire am kansul si boppam wala naa seetaat staff boobu am maa ngi wax si yow si boppam na ci ka boobu parce que ñoo ñu si ondam la gars nekk parce que dama foog ne am na yéen si moment dafa officiel su dem na ba xappun yéen nit war nañ see mun a bàyyi sa xel ensemble min parce que dama foog ne eh, tur ñaari am ñoo nekk Kanzu administration si boobu te boo si yow moo ko amee nga am political am bi muy side side meilleur mooy ñu suñu side ensemble min soo te foofu si defoon nii rek problème bu bu rëy foofu la day so cest à admin bi nag boobu moom ñoom seen boobu administration si boobu ñoom si yo ñoo ko contrôle ñu si political am bi ni nekk te Kanzu la bu bañ a sa boobu problème avoytal boor boobu lu bëri parce que local government act bi guide na la si yéen yu bëri fi nga war a am ak fa war a am so through local government act bi nag man foofu daf ma nopp daf ñu noppal ñu ñëpp sax parce que boo def extra nag loo xam ne yow local government act bi jox la ta doole foofu sa doole agul foofu yow yaa is sa bopp problème parce que already lu mu bind ba pare teg la yow erreur bi nga bëgg a def nag dama nga xool ko ba pare nga sotti ko ba pare moom guide na la place yu bëri so moo tax political am bi nag boobu nag yaay des nag yaa sa ay nit ak sa sa intelligence nga use ko nga seet ni nga doxee sa nit ñi parce que foo dafa nit pour nga eew bu baax c'est politique ami pour mo dañu dangerous parce que nga sét nga bégalé seen nit ñi seen nga tago parce que suma ñëwon tay fekk yu ya keneen ngeen di ciow suma ñëwé abdal ya am diga ki am amna problème ko lu ma wax ma nga xar politique jot fi nit ñi ci gaw dé ma nga xar élection jot nit té dang ma against so fa nga ñu xamné abdal mo mo am diga waye suma joxé ki digal bi abdal ya afta dina mëna takul ak mom du nekk ben problème mon ting ci bari no la ko doxalé mo ne ki kii am digal bi pare yow against la plus mo pare né after ma bi dañ ko mëna solve ñu si ko takulé mu jé soo staff boobu daa gars yi war nañoo seetaat affaire hmm. loolu loolu loolu moom diga diga bu wér la bon comme ni nga ko waxee sa biir wax tamit wax nga ne am na kansulo bu ka wax na tamit kansulo boobu noonu tax foog loolu tamit ne political bi foog loolu kooku tamit dañuy war a gën a mun a bàyyi xelam tamit ko sa koo waka mu wax loolu yow du ñàkk yow sa biir wax nga ne diga nga ko sa koo kansulo mu ngi wax loolu noonu. na tamit du ñàkk tamit comme ni nga si political side bi ne du ñàkk tamit mais war a def moom dina ko def maire bi lu mu war a def dina ko def léegi ñu ñëwaat si affaire yi. pour mu leeral foofu. Mhm. mbokku Kasam ko waxee moom raytaan la moom mu wax. la moom mu wax. Mhm. <laughs> mais yow mënut a dóor kansula bi. Mhm. mënut a saaga kansula bi mënut a wax kansula bi dara. on bi dañ ko électé ko fa ñu kansula bi. on s' en maire bi a ko moo la élect on s' en so so moo am na ay tam mu wax parce que moom nekku nekku staff ñu kan sos we are not staff staff seen bopp nag ñoom ne wala am seen sutura onze ans mi ne teg mooy am na yeneen yu bëri kansul ngay mun ngay yaaxu ku yu bëri jigaay di wax jigéew si kansul la de si staff si la de jigéen loolu tax ma ne la Paa Babou kansul bi dafa am problème moo tax moo tax may la nekk comme ñun suñu biir moo tax xam dama leeral fa bu baax mm-hmm. soo ne kansul bi ak mm-hmm. nga war a leeral kansul kansul staff si fa liggéey oo kansul la moo tax may la council si ñu suñu biir problème amut. Hmm. waxuma ka council si dama ne council bi. Hmm. not council si. waaw ay think si council bi amee problème. Hmm. ku mun a takkul loolu. fanaan mooy CEO bi chief executive officer bi parce que staff si yëpp si ondam la gay nekk parce que ñun dañoo dem bàyyi leen fa ñun dañoo nekk dañoo stay foofu te soo bàyyi xel ñaata CEO ñaata ñaata ñaata mayor ñoo ñoo si ko bay ñëw te am tey meilleurs bi ñëw si ñëw mm-hmm. boobu kan ah, ah, bi ma laaj noonu ansa boobu si moo ko war a mun a ansa parce que amee problème kan su amee problème ñoom ñoo war a takkul loolu parce que am na meilleur fu dooleem bi am si yow na fu dooleem bi am que tey su demee tey ba am général council bi ñu def council résolution tey suñu paree ñëw suñu ministre si yow moo ko jël yóbbu ko ministre yi du ne ko meilleur moo ko yóbbu so come on problème boobu nag fu nekk te si gars yi di oo kan la gars yi di si gars yi que moom moom moom la ministre si boppam ebal foofu ak directeur of finance yooyu yëpp ministre yi ñoo ñoo ñoo appoint ñu position si yooyu xam nga soon tey ñun kan tey ñun dañ ñëw tey ñun kansul ñu ne ñun gars yi ñu ci doole boobu ñun suñu boppam ñu appoint on CEO as on directeur of finance te su bëri dina dina dina dina dina dina dina dina mën a agent bi parce que ting si war a dem demee rek ñu ngi suñu pawas waaye bu dafa nekk fi nga xam ne ni is from the ministry so I think that one ñoom seen boppam ñoom ñoo mën a ansa si mhm. yow si boppam waaw Papa ñu ñëwaat si affaire yi food bi waaye gis nañ ne liste yi ngeen amee council eh, ngeen liste yi ñu amee yëpp ci côté names si yëpp am na stan dañ fa binda comme like UDP names si ñoo fa nekka UDP UDP name si ñom lañ doon jox maloy ñi nga xamne ñoy support UDP ñi nga xamne ñoo votal UDP ñoo ñu doon jox maloy. yi lu ñàkk yow dégg nga lolu ci mbedda bi lan moy sa réaction si lolu yow wa maa ngi follow pro benn pro maa ngi eh, suma benn son brother la suma ndoo la maa ko dégg mu ngi wax waye diko advice tamit eh, mom mu ci si fili bu ne politicien la ma def nang so dem ba wala wax try nga am lu leer nañ wala nga wax pour élect moo parce que euh, am na yeneen yu bëri na la leer parce que suma biir wax wan naa ko government seen boppa ñoo selected 60 percent bi ñoom ñoo print seen ay coupons ñoo ko print name select te li moo bëgg a wax euh, maybe euh, xaw ma central or or not waaye south pour ma wax gars yi xam waaw waay waay waay Paa Babou yi si ñu bénéficier affaire yëpp. Paa ñu names yi dem names yi yëpp yi ñëw yëpp they are from UDP UDP supporters yi ñoom lañ ko jox. loolu laa la digal la. waaw ma ngi laa wan ne. déedéet laa digal ne la mhm. paak bi. Mhm. ñi ma ay ñi ma saynal ak ñan laa fa gis ñëpp. Mhm. kaas coupons yu bëri ñu gars yi ñëw rek ci seen coupons yi la. ma laa wan ne la ñu gën a bénéficié affaire ñu gën a njëriñ laa la wax kenn ku si Gambia 90 pour cent bi yëpp laa la wax ñi formé si. ñëpp man ko gis sama bopp kenn mënu ma ko maa ko gis nii son mbokki pël yi jaaloo jaaloo bari ba saako kese fa nekk am na ñoo xam ne ay Freetoon ay Ghanaian ak suñu mbokki suñu suñu niveau si Sénégalais yi. dem fa ubba mhm. so mu ma ma déggee wax boobu man dafa dafa fa nee man. Mhm. parce que ma gëm ne si woon tey UDP si boppam la. Mhm. tey UDP eh, yi kër UDP yu bëri lu soo leen bileem bileemal ko fi bi si boppam. parce que junne la correct data bi kàkk yow nga ne 60 pour Eh, non Ablaye xam nga lan li xam nga lan mooy problème bi ne gars yi bàyyi naxante bi mhm. nañ bàyyi naxante bi gis nga nit ku nekk wala ngaa xam différencier sixty percent ak ak forty hundred soo ko soo ko soo ko dee ma sipéko nga ne sixty ak forty gars yi ne leen dinañ jox sixty waay waay forty du am waay waay ñu ne neem si ñu ko change from BCC koo jox data boo boo boo boo récolte. ñoom ñoom ah, xaaral ma ñëw. Mhm. koo jox data boo ne yow. 5000 mhm. 700 nga jox ko nit ki. tarap Mm-hmm. naka la ciy nii mun a amee foofu naka la nii mun a amee foofu loolu laa bëgg yow sa bopp yow bu ma laaj question boobu mm-hmm. ma laaj na la loolu mun naa possible loolu moom mun naa possible lan lan moom mun na possible si boobu léegi bii ma mën a laaj question non non non man man man man man dooma loolu loolu parce que problème is mm-hmm. da nga laaj si so si da nga laaj gars yi déeta ñoom ñu ne ñu ngi I think it's five thousand seven hundred am na si tegu seven hundred and three I think something like that ñoom se boppam ñu ne dinañ jox sixty percent. Mhm. te da data boobu seen boppam moom la gars yi use seet jël am na koy na ko moo dégg mu ne ñii bu gars yi dox bu gars yi ñii doon taxawal di twenty twenty twenty thirty mhm. moom la ñuy use waaye after that man dama daxa wax bu man dik lan mhm. na ñoo xam twenty thirty sax nekku fi ngi ñëw am ma comme bii la gars yi na naka la UDP wala BCC si boppam naka la mun a ceeñee loolu te tey su loolu tey su loolu la tey UDP la woon te fanaa ñu si boppam ñu ci war a man kan sula UDP la dama suma kete nga sen amna amna am na suma gars UDP yu bari yoo xam ne attaque attaque ngeen ma amna na suma ay nit dama sànni karta ñu ni ma attaque ma leen hey lii du mbiri protect te lii teguwul suma loxo li ko mi ci wa ñu ko pri ma wan leen lan leen na ci carte bi gay xol ko gay am understand ma wa gay nak ñu ñoom understand ma leen nak suma ma ba am yena a kër ma jël ay yéen a coupon te te mo la ko sa bu gay am amna yena yéen a coupon dama ko yóbbu si yena a kër ñi ñeneen ne ma dem ma dem recevoir leen ko léegi amul amul kàttan ñu bëri yéen a mag yu bëri maa maa leen recevoir seen yos mhm. ma isi ma isi leen ko am na ñeneen su ma dem xamal ma kay day wax mhm. ñi ne moom ñi ne ñoom duñ miskin fàtte nga ne soo ko duñ miskin sax lii is taxpayers money on sanga min jëlal soo ko jël ko nga receive ko nga cee ku nga xam ne yow yaa ko tene nga may ko ko parce que tey borom alal bi fii baa doole bi ñëpp maalo ñoo lekka jëw leen ak sukur bàyyi force bàyyi force dañ ko use soo tey mun ngaa wane tey yow yow Abdoulaye yaa ko am waaye au lieu yaa ngi amee lu bëri kër. Mhm. jëlal bi nga amee léegi nga seet ki nga xam yaa ngi ko tene bu baax sa sa dikkandoor la nga ne ko am. maa du ko ko yeeloo. moo ko yeeloo. Mhm. xam nga comme tey man euh, naa ko ne mistake du ma ko ne mistake dama believe ne si gars yi woo ne Kansola si seen boppam comme coupon si bu mu am benn niim même fa ne benn niim ñu print coupon si cap ne baa ñu south lii ngeen moom central lii ngeen moom nord lii ngeen moom. wala nga ne each word bu nekk amount amount of coupon bi ñu la jox jola maalo bi ak sukur bi ak diwlin bi mm-hmm. léegi yow yaay seet di nii di wan si mu nekk si booba ñi nga xam ne ñoo koy yelloo mm-hmm. nga bind gaay mm-hmm. naa man kan suuda papa bu Cham su ma ko yaay joxoon man du ma problème su ma érie parce que su kër man xam naa naka ngay liggéey Ablaye man Ablaye ma ooyal la kër ne la xam nga de kii yaa ko yaa ne ko yelloo digga ma jox leen ko ñu ko leen ko si ma meree nag yéen a fi waaye soo leen fiyaayee xam nga ne ñi ko yeloo du ko problème bi dama fa ne du bi du am waaye bisi si boobu wane na leen si kof men bos suñ ko joxee dinañ ko jox waaye du mais ne ñoom seen bopp bu suñ bos afta bu ngay ñëw bu bisi si bu ngay ñëw pour couvre Banjul ñëpp na loolu koy Ablaye loolu ay war a bay jeex waaye comme soo li ma wax soo amee comme euh, comme goroj si nit comme lessee mere nga ko fen bi si gaa joxee sax da nga dem bugguma yelewu ma ko exemple mayoress mu ngi la joxe léegi loo mayoress da nga ne man bëgguma bu mayoress man bu Adama Baro laa bëgg kii ne bëgguma bu Adama Baro bu mayoress laa bëgg xam nga lii problème bu mel nii moo moo moo bëri fii Gambie si lu ma gis spécialiste ñun Banjul moom suñu capital bi ñun moom wax moom wax rek wax wax rek te fan naa loolu moo bokk na si lu ñoo gi naa sonna si lu bëri parce que ni wala bàyyi lu nekk soo koo def c'est ça sa doom nekk li may des mu nekk maa ngi seet suma doom pour ëllëg bëgguma ëllëg kenn xas ma nekk loolu moo si loolu lay dox fu nekk waaye nañu war a si yéen yu bëri comme wax bi nga wax ni ne UDP waaye yow sa bopp a gis nga ne yow na Sentara su dee loolu fa am wax ma Sentara UDP man xaw ma sax man xaw ma man xaw ma ah, exactly man xaw ma waaye bu sawat bi leer naa la bu sawat bi di most bénéfice ñu bénéfice am ñu gën a am a affaires yi day noon Gambiens fu ne si kese ñoo fa fees parce que ma yéen a ma toog a ay du nekku Gambie mais yéen a si gën a am njëriñ mais li Gambie rek la am di caaxaan a gars waaye tey boo ñëwoon tey district c'est passé bi si gars yi woon na ñu ngi jox si Banjul eh, Gambien citizen ñi nga xam ne waa Banjul diggaleen citizen fii Banjul fii suñu wane ñun ñoom seen bopp nañoo jox si si passé dafa mut dafa mut dafa mut kenn du am problème parce que dama dem bu gis ne Banjul suñ ko cegee nga ceg Gambien bi nga ceg foreigner bi dama ragal sa gars yi uppañu mm-hmm. wala ñu ema gars yi mm-hmm. so bu dee wala joxe lu mel ni comme sixty percent doomi Banjul doomi réew mi ñu seen bopp ñu di leen am after loolu laa bu ma demee si paak bi lan laa gisal sama bopp waaye tey am na ñoo xam ne toog ne waaw jox nañ ko forina bi eh, gambien bi amut waaye dama gëm ne tam dund dund su da ngaa joxee dund bu joxee loo ko nit politique a am forina la gambien la ku ko mun a am it's ok man amoo problème loolu parce que tey ku fi amul sa ay mamati maam si neen dëkka si jigéen si beneen dëkka te dina soo comme mbiri dundu te te ñun comme ñu mel ni comme ñun doom bu góor ñun dañoo tukki rek kenn xamul fa la ñuy mujjee doom bu góor fen jëm ko mun ngaa jigéen bi dem dem keneen la fi nga ne keneen la amee su dee yow da nga liggéey lu baax fii wala sa waaju liggéey lu baax fii boo àggee yeneen dikka doo am problème ñu bëri ñu ngi mucca si awat loolu mooy di muccaloo ñu seen waaju liggéey la wala ñoom lu gaay liggéey moo tax tey jigéen séef am na ñu am ñeneen tolof tolof bi na gaay koo laajte bu baax naka la gaay la dundee ak nit ñi fii wala mais bi tamit naka la comme seen waajur tamit dundee ak nit ñi tamit loolu nit wala bàyyi xel bu baax la si tal background bu baax a baax foundation bi fu mu dooree loolu nit ñi wala di ko bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. waaw jërëjëf Paa Babou sa loolu moom leer na trop léegi Paa Babou ñu ñëwaat si affaire yi si CSO yi nga xam ne ñoo doon wër ndax ñooñu dem nañ formal dem nañ training bu baax si sa yoo si sa xalaat. Ah, boobu nag. Ah, xaw ma nag gars yi dem nañ training bu baax a baax waaye leena daal. Euh, comme like training bi comme like naka la ñu comme naka la ñu mën a approché nit ñi. exactement yaa ma understand waaw loolu laa naa ne understand nga li ma. waaw loolu laa mi fa boo ñëw nii moo tax may la euh, comme euh, man du ma wax loo xam ne xaw ma ko du ma wax loo xam ne nekkul dëgg. dëgg la man sax boobu war naa ko war naa ko toog nañ office bi ñu ngi toog dañuy tombé woon fan war naa ko gars yi mais suñu tasaare dañoo dañ la ñu tasaare households or compounds or am na ñoo xam ne tamit mën ngaa gisee households yoo xam ne am na tamit comme cin am na ñoo xam ne tamit cin ne ko suñu bàyyi suñu xel yu bëri dina nekk problème ma jël exemple comme man suma kër. doguma la foofu ñoom dañu wax ne cin bu nekk cin bu nekk. waaw loolu la gars yi wax. waaw parce que si laa ko wax gars yi mais nag tey soo ñëwee suñu kër tey comme nga seet su man man suma brother ak suma seet ñëpp fa soo ñëwee da nga laajtee household te damaa ne man suma seet suma household suma brother dixième suma seet ñëpp fa dixième mën ngaa ñëw ma registré ñu ñu pare registré suma broda te registré suma bopp parce que ñun suñu coupon ñu xam dama am tri coupon waaye te loolu benn cin la ñun benn cin nañoo lekkee xam nga understand nga son point baax benn cin nañoo lekkee waaye boo ñëwee tey mën naa registré différent coupon parce am na kër yu ba yu ma gis da nga caba jabar registré papa registré doom registré mu nekk ay coupon si dajale understand nga mit moo tax man moo ta mi ne Kanzu Ndóo si seen bopp te war na involve seen bopp si yéen si yéen si waaw ñu ñu xamul mën a takkul parce que am na yéen la Paa waaye Kanzu si digal dañ waroon a involve seen bopp loolu moom seen responsabilité ah. waaye ñoom ñu ne ñoom yëgul boolewuñ leen si ah, waaw xam nga xam nga leeral la ko waaw tey tey tey doo doo doo doo doo su ma sa kër tey mm-hmm. su ma demoon sa kër mm-hmm. ma dem ma eh, fekk eh, ma ma honnête fa xew tey sa biir kër mm-hmm. nga dugg si abe looy lu maa def. sa kër. su ma kër. lu maa def nga waal loolu loolu loolu boolewuloo ma si. sa kër laa wa de. su ma kër nga waaw mooy obviously balaa ngaa dem ba war a organise programme su ma kër obviously foo jàng contact ma. moo tax contact ma la mooy sa kër looy wax. ah su ma ñu sa kër rek contact ma la. Hmm. ñu ne du ko sa kër dafa programme. non boobu bàyyee naa la ko yow. ah kay yow lay laaj loolu. déedéet man yow man bàyyee naa la ko yow. waa léegi laaj ma loolu léegi. déedéet man man li ma la laaj too. too waa léegi laaj ma ko léegi mu la wa li mu la laaj léegi laaj ma ko. Eh, moom loolu laa loolu laa ma ne la loo tax ma ne la kan su lo si ñoom ñu ne boolewuñ leen si te man loolu loolu ñoom seen point de view la yaa mon instant so ñoom suñ leen si boole obviously ñoom mënu mënuñoo ñëw rek dugal si seen bopp mooy li ma la wax waaw xam nga bu sa kër tey yow sa kër hmm. ñëw def fardara tey waaw nga ñëw fekk ko tab hmm. ngay def affaire dafa hmm. soo ñëwee di ma laaj te nga ñëw nga lay ma lan moo xew suma kër du digga parce yaay borom kër bi du yaay borom kër bi mu expliqué la Abdoulaye lan moo xew. Mmh. su la ordonné yow sa kër lu ma de sa kër yow dina bénéfice sa waa kër sa waa kër. Mmh. looy def. Mmh. di nga àndama doo àndama. da nga àndama. ba pare tegal ma si ne pare pare nga wax ma dëgg tamit ne ma next time bala nga yu suma kër. defal lii ak lii ak lii ak lii ak lii waaye lii suma waa kër fu nekk ñoo see bénéfice xaaral ma jàppale suma waa kër. so moo tax ma sama ne kan si boolewul leen si. texte bi dañ ko seen suñ groupe chat bi DM dafa fort texte bi foofu. ne receive na lii from central gov eh, government mm-hmm. si télé laa toog ko ne receive na coupon from central government ñu ngi ko yóbbu kansul si yeeso yi seen bopp ñoom ñoo ko tasaare on s'en bu ne si yeeso yi tasaare ko kay sa gars yi ñëw nga pour nga seenal leen pour ñu mën a seen seen coupon si booy def ko yaa fa nekkal gars lan moo tax nga toog sa sa kër nga ne yow doo doo doo seenal kenn xamuloo xamuloo lan nga seen xanaa li nga seen yow daf den la den la safara wala fan la am na yéen yi am na yéen ay am na yéen ay Ablaye. Mhm. yéen ay xel moo koo jël. local government act bi daf ñu nekk ñu guide through am na yéen yi nga war a jëflante sa sa sa nekku nekkul through si local government act tey am na tey ni ma war a jëflante yow teraanga si si si si si si area bi nekkul si act dafa mel ni maa ngi jëflante koo yokk. kon dafa mel ni councilor yu bëri daal xamuñ seen responsibility wala xamuñ local government act loolu nga ma bëgg non ñëpp xam nañ local government act bi. ok associé xam nañ local government li ma la bëgg a wax mooy. Mhm. am na fooy toll doo tal local government act bi turu sa area sa fi nekkee tegaat act bi ne bi mu laa eh, di di di eh, protect que soo dee ba nekk council fële council li nga fa war def user turu act bi xam nga astangal bu ba xam na bu baax li nga wax Paa turu act bi xam na bu baax li nga wax Paa soo diggante government bi fu mu nekk nii. Mhm. wala di dis local government usal act bi. waaye tey am na yi ngaa jëflante sax waa gox tey. niiduloo ak niiduloo ak foofu laa bëggoon a ñëw ak. jëflante la sax yow te léegi léegi waa léegi par exemple léegi taxa taxa taxay xew yi nga dem sax sa gox mu ngi si ak bi. déedéet. soo ko demutee lu la kay dee wax ah Ablaye ñëw suma taka bi ñëw suma xew bi ñuy bu rek laa bàyyi xel lu gaay bi lif yaay kan sa bi évidemment nga taka ak seen du bàyyi force su yi di protesté waaye boobu loolu moom da nga war nit da ngeen war di demalante waaye wala ma sa taka ak sa xew bàyyi force du bàyyi force lila war la nit si bopa nga utali fekkali sa ay nit mhm. si kay xewle mi bani ak nahar mhm. way te dëj dafa am sa ne tey ana bi kansula solo gars ni anam si dëj bi mhm. na mu ngi si ag, kansula bu mu nekk na ne ag mu cekal ma si ag. bi ndax na fenn fu la gars yi osanga min you you are there to with, with, the, the, the, community and the uh, council osanga min yow ya fi do ya nekk digante council ak sa nit ñi nekk sa digante nit sa nit ñi ak BCC onze ans mille su sax nit ñi amee si jaaxle yéen a jëf seen jaaxle ñu si yow nga seet ñu koy wakkan sul waaw waaw understand nga son so bul bañ ba pare bu ko invoqué nit pare lu gars def ay seen audio ay seen man anyway man aw ma problème loolu sama kanso si ma ñu ñu suma waay leen ma nekk man lu baax lay wax seen gannaaw ku nekk xam naa man fa sa ngi nit understand mhm. nga mil waaye ma advice gars bu mel nii parce que ñun ñëpp ñëpp a wax ñun bokkuñ si lii waaye boo demee ba àgg ne bokkuloo si lii da nga war ne dafa am ñu la éleg te da am ay kilifa te baa den gum tànk ba tey di respect kaddu bu la kay demee ba oo ñu meroon ne bokkuloo si ñu la oo ne la kaay lii da nga ko la def ko waaye mbiri seenal gars yi pour garantie gars ko sa woot man si laa door si laa door a indi sama bopp si si si ma dem sañ sama woot nekkal leen fa nekkal fa baat ñu saal yëpp si boppam sax nekkal fa sama yeneen moroom yi kansulas mhm. ma dem ba affaire si daf ma puus man dama ah dama nekk ne euh, su ma dégg naa la ko waxee waaye euh, añaanu ma dama xool yërmande ma gis after things euh, su yi after parce que after nit ñi ne si tasi ko faa christian ko seen kaw bu ñoo déggal ma taxaw ne leen xam nga lan la respect leen borom uniforme yi any problème ma ci lu mel nii fii fi am dara da nga gina degal nen ma ne ma nekk although ndaw la waye jox ma cër bi ni bi seen boobu après dañ kontaan ni ma diga diga dañu help ci li ni lu mu degal degal parce que amna kan kala diga mu ngi ko wax boo interview mu ngi wax lu mel non mais kan soo fa nek fa gars yi ñu bari ñu leen degal degal la ñun ñep ci li ne mo nak ñun daf lii lu ñu dimbale sax nga wone ka ci si bi ku ñu nga garantie sa gay bi da woon ne plein ne bi ni la fa demee de waye man naa leen mën a garanti ni yéen seen bopp yéen a ma ñor ku àgg ki dafa diga diga kan bi ñun ñun suñu boppa mu ñoo dimbali ñun suñu boppa daf ñu ñor xam nga lolu lolu fa jee waye bo demee tok tey ñi a mën tok def vidéo seen audio ñëpp ñëpp mu neen ko masanga min waye ci ta sa nit ñi fos lan nga am puy wax comme yene sa yeneen kan solo yi nga xamne dañ tok fol sen hands panka sen loxo ne ñom duñ ci bokk lan nga am puy wax ñu lu advice gars yi daal assez broda euh, Wednesday Fana si la gars yi war a Wednesday la gars yi war a dooraat Wednesday nag gars yi dem seen woot si fu nekk su la nga dem taati Park mooy King uh, la na gars yi dem foofu ak suma kookan su si nekk fii eh, Afdaay. Mm-hmm. gars yi ñëw toog seetal seen bopp si nit ñi foofu moo gën. Mm-hmm. toog wax say toog si nii say toog baawut. ay mm-hmm. ting loolu la gars yi a def fu nekk nii dam dimbali seen gars yi si loolu mm-hmm. euh, balaa mm-hmm. gars yi dem close second class day bi boos mu ñëwoon boos kan boos moom ñëwoon ba saynal gars yi saynal gars yi saynal gars yi bi sax waaye mu loolu li nga ko advice bu leer la because ñooñu dañ owe obligation to their people they have to do it because ñun fa teg loolu moom mbaadum sa biir wax yow loolu ngay wax dañ war a staan suñ la si boolew sax boolewuñ la si sax da nga ci war a bokka am understand so papa bu ñu ñu delluwaat rek tuuti because of gis nañ ne. like ma leeral fa bor boobu sax. waaw gis naa eh, sa ñu daañu seen dara Mohamed ndaw waaw Mohamed si ma dem na fa. Mm-hmm. Mohamed Ndao fu mu war a mën demee dem foofu ana kansu si parce que ñun ñoo dox diggante nit ñi ñun kansu si ñoo ñoo ñoo a nekkal ni ñi fële bi si si kooku député la he is there to make laws so dafa ñëw foofu rek taxaw pour nga gis ko. honnêtement nga ni pour jox ko cër yéen mhm. mën na laa defal nii defal nii defal nii mhm. waaye kansula bi yow yaa yaa doon diggante nit ñi yow yaa nit ñi nii leen ah, waaw ñu delluwaat si affaire yi bagage bagage yi mooy lan affaire yi maalo yi moo isi moo jur coow li coow li yëpp coow li yëpp Banjul la yaa mën a staan gis nañ ne te am na ñeneen ñoo xam ne dañ am ay ñaar ñetti coupon wala let's say gis nañ koo xam ne amul jabar amul amul famille sax mu ngi am coupon wala am koo xam ne am na ñaari coupon wala ñetti coupon si benn néeg na la loolu lu war la ñu jox la man joxuñ ma wala ñu jox ma joxuñ kii na loolu lu war la yëfi ñu ngi su yëfi xaajaakloo am na sa am nañu du ñaaka kansul bi ñoom am nañ nit yoo xam ne ñu ngi complain ne kansul bi ñoom ñu ngi def loolu nga yow loolu du ñaaka lan nga si am puy wax yow waaw ah, li ma bëgg a wax waaw ku bileem kansul si lii mhm. yaa nga tooñ kansul te mhm. su amul benn affaire lu mu def ak loolu xam nga yow mi xam nga mbiri computer mbiru machine dafa doy waar. Mhm. am na yeneen ticket dañ ko print dañ ko print printaat ko. Mhm. constat bi noonu laa ko mën a waxee dañ ko print printaat ko parce que noonu laa ko mën a gisee parce que double double coupon nga nekk dañ ko dafa dupliqué. Mhm. constat nga mil. same coupon la nekk same mu ngi si data bi. constat nga mil. et am na ñu nga xam ne yenn famille ñi di seen bopp tam digga digga. laay ñoom ñoo xone sut. parce que dama ñu sa kër te ne laaj la Abdoulaye ngeen di nekk seen kër fekk yéen five la. ñoo ngi ne yéen yéen fifteen. parce que expect nga ne lu mel nii mu ngay ñëw am na yenn famille yu bëri noonu la fa demee on s'en remet mhm. yow yaa war a fee moo tax si dañ war a involve seen bopp after si mhm. la si bi nii mhm. parce que man ñu mel noonu gis naa ko am na ñeena singul leen ñu la bind ay six nit suñu seen famille tas mi ne ñu war a am fifty kilos suga ak rice diwlin ten litre man kansu la bi dama ñëw pare pour ñëw seen seen ñeneen seen coupon si dama dem ñu receive ko ma receive leen ko ba pare ma xaaj ko seet ki nga xam ne mu ngi ci kër boobu amut ñu laa nekk di tasaare yére yu bëri su ma gisee ne am na ñeneen ñi dama dem benn kër gis kooku li fi leen euh, ay almudi leen comme noonu ñu ne ooyee gars yi almudi seen kër bi ñooñu kenn amu amul amu jabar amul dara kii bu registré taati naka astafurlah fi 12 kii registré Fatim ku ku nekk wala si 75 75 75 ma dem ma jël beneen ma dem après ma dem ñu nangu beneen coupon bi ñu jël beneen coupon bi ne na gars dem kaas bi. bële fooguloo ne fooguloo ne ñi nga xam ne ñoo demoon pour register ñoo demoon bindu ji ñoom tamit problème si ñoom la. waaw xal la ñu def mistake xal la xal la ñu def foofu parce que xam naa bàyyi ko xel bu baax. moo tax mel ne comme euh, ko dafa mel ni comme bilin bi yëpp daal maanaam daal si si ngay mun a wax because ñoom ñoo doon woote jël data si amoon na stand so dafa mel ni comme problème bi xapoon yëpp ñoom la siyoso kandilen sile kandi bilem kansula kandi bilem meew si baba kuy bilem da ngaa bilem central government ñoom ñoo select da sixty percent ñoom ñoo print names à ah, France ñoo print names bilem yi foofu la moo jege su doon printul names after boobu mu one kansul seen boppa comme siyoso si boobu ñoo print names o ñun kansul ñoo print ñoo joxe names yi boobu ñu ngaa bilem waaye à France ku print names yi si boppa kooku moo cause problème bi te boobu désastre la moo jigee so ñoom dafa ngi seen dara ko fi seen bopp ñoom ñoo cause this problème parce que ñoom ñoo tànn niim si nu leen neexee la ko gay tànni far ak di een dafa ñoo fool si foreigners si si boppam ñoom ñoo ñoo gën a bénéficier li parce que li ma gis fee ninety percent bi yëpp foreigners la baa ñu saar li ma gis baa ñu saar xaw ma nopp ak seen dara la waaye yëpp foreigners ñoo fa fees tep tep tep tep ana doomi réew mi te lii is taxpayers money comme head of state di ko tank ni gis lum lum opportunity lum lum bana torop mom da dem tok bala sa rew mi di nga wala joxe comme lu melni comme 84% xam nga baxna waye da nit ñi tam xamé is money ni suñ ko try pour def nañ ko nañ ko def mu correct xam nga li mo nek problème bi papa ba legi ñu bala ñoo tago papa ba ñu bayla rek lan ban advice nga am pour nga xamné ñoy ñi nga xamné ñoo sa sa ban advice nga am pour wax especially council bi ci bopam ban advice nga am pour yo sa sa collègue ak dendi council ah, ma council advice moy la jox council euh, mm-hmm. si man mistake la si man like euh, coupon cigare to council di diko tassa diko tassare dang ko na baye ci société mo bakay continuer def ko parce que as faras ciow bi société mo happen ni yeb council ñum seen bopp ñu ko tassare nit ñi xamul ne li amul ben affaire bu mu def ak BCC Wai aspa dem biji sisa tunde kufare yo biji singa nganya. Pasi ini, a ignorance a fukwa nyu filo nchi sona ignorance a fibori. Osa nga orang Pasi yo dem nga bisi sisa tunde kufare yo chengene kufare ngene wa bisi sisa fai ma. Pasi amna kena kufare dem. Buka fa isik tenson. Sol mubi arama baro duga si mune dafa nyu jesi li kupo ngami. Ni gai chek sisi dem nyu kai wasa kupo nyu Om lo fi kupo. Hana nga har bukan so wala jehe. Ruyu lo si wala jehe. Dila kwa gai wa. mau mo bukur buruki. Mo arah arama baro la buka. What does that mean? What's that? Is it potential sadi saga? What does that mean? Kan la buru gelo bi dige Hana si bi jehe after. Kan. Si bi jehe bu adu. Ay shone banjul len ci yeb dinañ ci am. Nda du melni comme bi. Xam nga ñun euh banjul dañu won ne ñun ñoo am di best council. Hmm. Bu musta am nga doora am. Si gatal. Wow. Te inshallah yalla dina ko yalla dina ko def ñu suñu jima fu mu xas ba duga. Yalla dina ko barke bu baaxa baax. What does that bobu xamaguma lan la gay finalize ni euh, xamul na dañoo cover this 40 oh dañoo jox bal ñu yëpp comme ñu gay wala ay ku jox bal ñu yëpp so xawma parce que ñu taguma si kenn ko mëna espion lu mel non parce que xam nga this c'est le public image mu taxé ba tay su meeting ci la gay suspend mu ñu mu ñu cancel so mun ma xam dara cancel fu nekk ni ba que stay at home motama tok ma area fi di mënu ta suma wot so lu mel ni moo fa nekk bo mënu ma sé dara waaye problème bi mo gis ni dafa mi ni comme foofu laa mun a wax suma gars yi comme bis lu mel ni comme business yi te war na bàyyi e si réseaux ñun sama bopp ñu tasaare ko ko joxee kan suul parce que ñun tamit ñu ngay jël di call, di kool nii kaa jël ko ak business yi kaa jël ko business yi président dafa ku nekk dem business yi amuloo rek nga stade bilim business yi te amul kan kan mu la wala expérience ne la yow yaa ngi ba bilim business yi te business yi doonu dana sili kan mu la wala a expérience kan la si so demee si kan suula bo xam ne la laa dara fit fit na amut fit na bu bëri la fa demee comme man tey suma nit ñi ku ñu dama lay comme lu ma la wax nii lu ma wax fii nu si dooree ak fan la ABC jëm ak wala ñu suñu stand fan la la ne mun ak li munut ansama mit parce que tey boo demee tey ma ne coupon am ne Abdoulaye Souare ma check check Lancaster dama seet na ma sa téléphone na la fekkee kan la ma ñu ko check ko si ABC ne moom la boo mun loo ciit ma bind sa na sa nama téléphone sa téléphone na ma si gannaaw ma la sa coupon mu ngi ni xam print la problème bi fu ma war jigee si ko print waaye du problème parce que wane la nag sixty percent ah, da ngay xam luy sixty da ngay traité xam luy sixty nag ni la ni ñi wala du la traité pour xam sixty percent la government wax ne loolu la ngay di jox waa Banjul sixty percent ku am yaa ngi si sixty bi ku amul nga xam ne yow si forty bi nga bokk a bokkuloo boolewul la si daal par exemple nga xaar bu BCC bi su ñëwee boobu dina ñëw pour cover affaire si so lu ngay di Adama Barrow mooy joxe fine mooy mooy mooy mooy mooy mooy président bi parce que comme su bisi si ñu ne kan mooy joxe ñu mooy meew Banjul onze ans mille lu may wax nit ñi dem nga ba ne président yi mooy joxe si projet amee tamit ne ne président du digga parce que yaa ngi joxe mu nee nga joxe nga pour kontaan lu ma kontaan loo ne Abdoulaye Wade jox président baa ko jox fine waaye boo demee ba amuloo tamit waxal nit ki ne président président baa la xañ pour nit mu xamee ko noonu parce que amoon ni ki tamit tamit is tax payers money pour li ñu xam loolu tamit ñetti yëf yi moo si am bisi si seen bos loolu ñoom dañ ko dem pour lobby si biti ñu isi leen ko jox ko. si turi Banjul. ah si turi Banjul. turi waaw ah, bisi si a obviously. Mhm. waaye si ñi tali ka ñu ne rugilo onze cent ku dem ba am si boobu nga gërëm yu boo dee ba si boobu tam nga ñàkk ne amuloo nga bileem ko onze cent waaye nga xam ne bu bosam moom si boppam dafa fight si njiitali Banjul waaye ji lu xale si bii si dafa fight wuti ko lu miti la def xam nga dafa métti uti naa yow xale ah, taxpayers money taxpayers money boo coono nekku ci de boobu coono nekku si waaye pour gi mu si waa moo tray ay nit yu baax ñu stade bi na ay nit ñu stade dimbale BCC li feebar bi moom kenn xamut kañ la moo jeex on mu try mu lobby ko lobby ko ba avesi ñëw foofu onze ans bi style gaa ngi si kawam mhm. ni tak force baa ngi fa tak force tak force am bi si boobaa bi nga ne moom leen fa moom bi ngi fa style ñoom tam yi nga lobby style tey fa odee tey lu mel ni comme ay ñoom taf ñëw di dineen bi si si xam nga taf xaw ma xaw xaw ma man waaye xam naa taf ah, xam naa taf ñu digg naa taf taf taf mu ma taxaw ne la kii mooy taf ba ñu mel ni ñu ñu mel ñu mel ni ñu mel ni comme ñu taf bëri na ñu ngi ñëw tey di dimbali bi si si ndigali kan jiitali rugi On understand son point Comme Baro tay si toogee si biti ñu dunet ko tay dañu ne si biti ñu ko dunete si ñitali kan head of state Baro Adama Baro on understand what I bobu di nga ne si ñitalam mom la gaay ya may ñu ñu sare ko waye bi is taxpayers money nit ñi tay ya xam lolu buru gi la di joxe ne ko jigéew si xaalis si BCC de mom moko lobby si lan turi banjul comme ni nga wax turi banjul on understand what I so mo lima advice BCC man suma advice na ngay travailler comme na ngay travailler mun a sos eh, eh, jompaan ñu ñëpp su dee dinañ ko mun su dee lu ngay am tollu na foofu pour xam ne government moo joxe woon lii ñun bi si si bon local government ñoo joxeel lii central government lii la joxe local government joxeel lii on s' en amee waaye su ñu demee ma on est mutut loolu na satisfy that bi coow bi jeex ku nekko si sixty bi soo buggee si coow kon ko réewuloo man li ma gëm nit ñi foog ñu wax waaye loolu lay def taf ko diggante ak yàlla. Hmm. parce que ñun ku nekk booy booy bu ñu dem su bu ñu bu ñu doon indi office bu ku nekk dafa téye alxuraan mu wàcc. man always tere wa gaay te kanso bu nekk da booy waat da nga ne aay. onze ans min so ku nekk da nga war a bàyyi loolu bu baax parce que man tey bu ma nekk indi office dama ne ay Papa Abou Cham I have been elected as a councillor in the city of Banjul. Do swear that I will execute the function of the council without fear or favour. affection or ill will, according to the Local Government Act and the Constitution of the Gambia, ni so helping God. Xam nga dafa leer so ku nekk nak li nga def te awra mi nga tey wa man musuma tey awra sama life ma wat ak li ma jàng awra musuma dem dara jang dara musuma tey awra ma ma ekete ma wat ma te mu ko waat di Abdoulaye billahi walaay taala ak or bi ma war nii dama tiit ngi def loo musuma ko def tey bu ton awra bi ma tey waat mënoon naa mel ne ma tey traité bu ñu soo bu def sa yeneen njuñ jaay boo xoolee li nga waat yeneen yu bëri di nga ko xalaat moo tax ngi wax politicien ci ñëpp ku nekk na bàyyi xel te na place yu bëri épici service yi ay ci ñun tam dixième tam dixième da nga ko dee waat ku nekk da ngay óot booy jël axuraan boobu bu ko bu ko caaxaane li nga waat jëfe ko waaye da nga wax ni mi ah, loolu waat rek la xamuloo fu mu laa da loolu la em sa laa disturbé sa dund mm. bugg yàlla la disturb sa dund sol disturb bi dina disturb sa ay doom so politicien bu nekk na bàyyi xel lan la waat on sanga min sa waatal loo sa fu nekk ñu waatal sa woot de on min léegi soo ñëwee sa biir woot lii la ñu da nga war a sa waa woot nga faytal leen jërëjëf Papa on sanga min faytal sa woot mm-hmm, dee la gars yi fu gars yi pour dee dee fa man Papa bu Thiam su ma woo damay di dégal ma tam je jere jërëjëf. bu ku ma si nit o nak suma si kansu mere au président au maire au ministre pour man amo si problème. So wot mo la ñor suma wot moo ma ñor ñom lay faytal. su ne fay ba une fay di ana fu mu em mhm. mu parce que dama am groupe chat bi nga xam jollof tan fi ñu fi nek ide bi ñu bëri ñu si groupe chat bu. parce que ñu lay laaj groupe chat ñu ngi groupe chat différentes façons ci mu nekk mais groupe chat bi so yi ma ibiko pour ñu communiquer la pour way forward pour Jollof Town Ward. jërëjëf tey bànnee lu mun a am naxar du may dëj ak ngénte lu mun a am mu koy recycler ci channel diw sanga moo am dëj moo xewle ni fa dem si ward bi la dëkk si li may yëngu dama ko faa dugal ne la maa ngi si lii pour ñoo xam ne ki gisul ma jaaruma seen ko mais si lii laa si lii laa nekk. si lan comme suñu eh, suñoo liggéey ay suñu lampa yeeg clinique SSS ñu def pour yooyu. waaye dund wan laay jox nit mu nekk sama waa woot du ma use media te du ma ko def si groupe chat bi dafa am sama woot développement community ñoom laa lay use ñu ne dem guddi. dem sa bunta nokk la isi la li ne la téyel li kon kay honorable Touma njaay toog na kolo moo tamit isil ma sukur ak maalo bu nekk ñu ko paqueté ma seen ko suma groupe chat bi ne leen Touma isil na lii pour ku ko gis ne bu Touma la jërëjëf ci nga ma sama pos ma sama pos ma ko joxe bis taatini weer man ne or friday boobu si guddi woo laa ko door astafurlah Tuesday laa ko joxe ba ñeneen ñi naan kii julli weeru koor nga doon ëllëg sax kii isil bu ñu isil man ngaa gisuma de suma ay nit la ko gay wax ma door ko eh, Tuesday ak friday fanaa saturday bi fanaa ñu tara ji complet ko yëpp dañuy xaar ba guddi ñi konkon la jox la ñu laa jox ñii maalo ñii sukkur ba afat bi si si jox ñu tàndarma tamit five carton fekkoon ne mu nekk tenef mu nekk fifty fifty la fifty pieces ku nekk ma boolee ñeneen ñi sukur ak tàndarma gars yi yóbbu jox la ñeneen ñi ku amul tàndarma nga am sukur onze ans bi noonu lañ ko tasaaree ba koo fas mu wóor jërëjëf onze bi ñi nga xam ne dikka mm-hmm. dikka dañ koy yooloo ñu ne mm-hmm. mu ma jox leen ko mii mm-hmm. de gisuma ñoom seen boppa gisuñu ma su World Development Committee ñoom laay gis parce que kaso bu nekk da nga sa World Development Committee am na yeneen yu bëri ñoom ñoo la war a dem si yeneen yu bëri ñoom ñoo ko yóbbu dem tasaare ko Mhm. Kan ni mhm. gitu kan mhm. man li ma sutura yàlla moko buga bugga dafa def asamaan def suuf kenn mënu laa wax exactement fi la nek jere yef Papa mu si kaw mu ñew tey jox kir kër ne ñu fa dëkka pour lan ñu sutura bofa jere yef mu jola yire yére bi solo yére bu baax nga sutura sa bofa te ablay bi ñu ñu jox bamel pour lan sutura suñu bofa ñu dugal ci bamel bi li ñëw di la fa fekk da ko xam man tey bu ma dugalee ci papi tey man li ma daj fu yo doo ko xam nik lan sutura so ku ku nek na sutura dafa baax ñu bàyyi suñu xel si yeneen bëri ñoo def lii bu ko nit ñi war na ko gars yi depuis last time bu even sale si ma di ma interview ma ne ko politique lii li nga bëgg yéen bu man maa ko wax li nga bëgg yéen bu loxo yàlla may ki ko def te yàlla tax ni ki lekk ko kontaan yéen la yàlla fay yow yow mi ko jox fu mu lekk jërëjëf Papa parce que politique amut ak ñi fi lekk man góob ma lekk di ko politiquer te li moo gars yi politique jéem a depuis ñu koy élégué nañ liggéey nañ saaf suñ nit ñi loolu moo ñor loolu moo make sense waaye mun ma understand tey man nga nga elect ma lu nekk ma def ko rek ñu mu ngi politique pour lan am na ñenn xam nga jara constat récif waaw gars yi ñu ngi leen di xaar gars yi nga ñëw mel ne leen ku lay xaar ku leen laa kuy xaar xaaral Adama Barrow sa carte boo ko Adama Barrow parce que moom moo joxe lii ñu joxe wuñ ko de Adama Barrow moo joxe lii ku am na nga bëgg a gërëm gërëm ko moom tamit Wali mana buka wasa on xaalis la may waaye mun ngaa gërëm borom fitee su ma romoon tey su ma nga joma nga far ko joma ko wala mala la wax dama la Ablaye jërëjëf lan ko ekati, ñama am sa xaalis a so mumu mumu jitu, moo nga ko nga ko wax jërëjëf ni lan jitu? mo presiden? bi waaye lu mu lu jox sa alala la ya, ko moom is taxpayers money so di one constituence buri. bëri la kay wala bàyyi sa xel bu baax na sa wóor ñor parce que ku nekk na ko waaye di wan sax woot li nga xam ne yow nekku si yow dégguwut nga nekk juste just nii di leen nax just di social media bi facebook di wax li nga xam ne yow nekko di ko jëfee at the end ya ko tudde léegi tey jërëjëf te su jotee nag fan ngay waxee te Banjul mun loon nax waa Banjul Banjul loo ñu fi wax suba ay balaa ngoon Ablaye sa bi siw na hmm. Banjul cabinet Sall la Dakar gi nii la duggee nii am na ñoo xam ne sax ñu la Sall benn bunta la am waaye man moo tax ma ne gars yi cabinet sax ñaari bunta la. Mhm. nii la ak nii. soo ku nekk yow yow ah, na la sa sa sa sa woot ñor. Banjul ñor la. Gambia ñor la suñ ko defee du am problème suñ problème suñu am nii yëpp nañ ko tegee si biti ñu liggéey suñ dëkka ñu namoo suñ dëkka gis nañ yeneen dëkka ñu gars yi di mel ñu ngi dimbale seen dëkk seen seen réew di proud si seen réew lan moo tax ñun Gambia mu ñu am loolu te dëkka bu am ñaan nga gis nii dëkka bu am ñaan ku fi def bu ici fitna fi du fi dee taxaw ni lan dikka bi moo am ñaan su yu mel noonu len ci wala bass bàyyi suñu xel bu baax jere yef jere yef Pa babu tay ñu contane trop yu ñew fi ni tay si programme bi ñu oyé waxtani mbedda bi talk on the street tay ñu amone kansulo muy Pa babu Cham muy Jollof tam wot ñu contane trop yu ñew puy host ko Pa babu ñu la jaajeufal xam naa ne bi yondu MC Bena di la jaajeufal Pa babu yo tamit waaw di kontaan si loolu tamit eh, di war gaay ne this street talk bi na gaay ñew moy watani mbéra bi dal na gaay ñew sumburada abdoulaye souare moko xus ñu la ngeen jappale ko ngeen wax seen problème doy bañu la wa bañu la xamna bañu bu baax su ñu watane mom di leen ko seen problème di leen wax problème ndaw yi problème tam ndaw la ko xamni am nga any problème rek ñu wasi fi nga wax ko pour sahel tv sahel network pour ñepp mëna xamni li ni la mo doxé pour fu nekk ñu sta ñu mburi di ko follow bu baax té avec ñu bañul fi opposite euh, lone bi DHL ci kaw foofu foofu la nek so nekk leen ngeen gina promote euh, promote programme promotion bi bu baax baax street talk la moy wahim botani mera ngeen ñëw parce que xam nga botani mera dafa over ro seen xam ngeen loolu lu bori ci mera la lay génne ci mera nga ko dégg lu bori utul ma di vuy lu gars xam lu bori tey bon mo président tey dama yoni si nit ñi ñu doon si vuyi pour ma mëna xam lu bori si vuy So mu ne satisfy gars rek bu doo feel si fen bor mm-hmm so tax programme bi naa ko rafetlu bu baax baax di won ñaan nit ñi ñu bari na gars yi ñu waxaan nit ñi si fi si ak si si suma programme bi Abdoulaye Souare ñu ci si programme bi street talk bi ngeen ñëw ngeen waxaan nit ñi nit xam fan la gars wala taxaw ak fu gars wala mëna taxaw fa di won nit ñi na gars yi bàyyi naxaate nah bi naxaate dafa passé. jërëjëf Paa Waaw ñi eewu neen. jërëjëf jërëjëf ku nekk xamal naka ngay waxee ak nit ñi nanka nanka la. Ya. wax nanka dal nañ la jërëjëf wax bu metti sol fu dara dafa yaaxa diine si bu am sa moko ko bëgg wax dafa la rafet jërëjëf simaale la nit ñi amala nit ñi jaama ñu indi wante jaama dossi jaama waaye wax bu nekka man ko kini kini ni ki ni ki ni ki ni man de aw problème mhm. te ko wax ko ba ko xam ne wax nga ñaaw si man lo xam ne taxawut ma ngi or jegal nala, la aw problème lool ma lima ñor rek moy suma wot kan su la bo xam ne tamit wax nga li ni yo la ngay wax wala mu nga nek si gay siyo ci nga am misunderstanding wala nga wala ko wax man Paa bu man jegal naa la plus di wax tamit na gay na wax neexul tamit eh, war fa mit su di am fi ben wax bi nga xam ne fam di nga di nga xam man Paa bu nek la nit jambu bu jambu bu bu dara jam yalla la dama lek xorom to di dafa juum nga xam ne si man la bi ko li nga xam ne nag lu jub la nga xam ne yëpp yàlla wax loo rek. jërëjëf parce que suma ñor. di kontaan ci wootam bi ablay bu baax a ni yaa suma brother Euh, kontaan si tamit euh, mista Bachili bi nga xam ne moom tamit suma suma la ñoom aada suma sista si ñoom Aysa mhm. ñoom ñëpp ñoom waale suma waay leen mhm. di kontaan si ñoom tamit bu baax mhm. di leen ne xam naa la waaw jërë ngeen jëf ah, di leen di leen di leen di leen waa jaa ngeen jëf si ñi nga xam ne ñu ngi follow programme bi di waxtaani mbeeda bi tey ñu amoon fi suñ gan di Pa nga xam ne moom ñu dalaloon fii si Jolof Town Ward nga xam ne kansulo bi nga xam ne moom digga rek a ko ñor di ko wax ne ko jërë ngeen jëf ñu ñi di di di wax ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan si waxtu bi ni leen wax jërë ngeen jëf te ngeen dégg ñoo ñu xel te bañ ñoo dégloo xol mm-hmm. lu luñ fi wax rek nekku ne dañ ñoo puy ŋaaña wala dañ ñoo puy criticiser déedéet ñoo ci puy gars dañ bëgg a génnee digga bi pour nit ñi xam digga bi te ñu amoon fi ay gan muy Paa Babou Thiam ñu kontaan trop si moom nga xam ne leeral lañu ni nga xam ne mooy problème yi problème bi nga xam ne mooy affaire yi maalo bi leen jaaje jëfal leen di leen wax ne bu leen fàtte subscribe leen fii si Sahel Network Entertainment muy seen programme waxtaane mbedd bi ñu ko ooyee street talk jërë ngeen jëf ba beneen yoon.